créé nañ bii nañ dem ñu xool duñ ci am ndam. mais bii tamit bi euh, baal ma Ousmane Sonko bu génnee ba andi ay preuve est-ce que xaaroo ñu topp ko recherche de document administratif. waaw loolu it mun na nekk mais Ousmane Sonko nekkul moom moo indi preuve wala nangam Ousmane Sonko li mu fi fekk rek la fi joxe waat. Mm-hmm, mm-hmm. maanaam su fekkoon lu mu créé la wala lu mu génnee naanga ak nangam mais maanaam li mu leen wax yéen ñëpp dem leen ngeen xool dem leen ngeen xool internet bi mu ngi foofu moom dugalu ko fa. dem leen noonu la lool. jërëjëf merci beaucoup kontaan nañu. ay ca mu ngi noonu comme ni ngeen ko gisee rek euh, intervention bi nga xam ni am na solo kenn ci euh, euh, militants yi Pastef yi daal na koy def mu mel ni ñoom daal pare nañ à 100 pour cent li nga xamante ni moom mooy 72 heures yoo xamante ni comme ni ñu koy waxee rek Sénégal mën na dem ci kawo donte ni ñaanu ñu ko yàlla sax ndax ku dégg ñoom ñu waxee moom mooy avec ou autorisation dañuy def li nga xam te ni moom mooy seen manifestation kon ñoom xaaruñu ku leen autorisé wala ku leen ñàkk autorisé maanaam foofu kenn ragal yàlla rek ñun rek lañu àndal ngir yàlla français nag jëm suñu dëkk. ils vont payer payer très cher même très cher. dinañ leen payer très cher ñoom xam nañ ci bu baax parce léegi man kay la koy fay location. jeexe jeexe tak gasa gasa rek ko baax parce que dañ ne réew xale moo koy defal te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne bul wàttani minal iman bëgg sa réew si jaamu yàlla version douze Sénégal problème bi mooy ñëpp déglu affaire yi ñu naan ay dañ leen di guux seen xel yeeg yooyu gars yi dañuy toog di wax rek problème bi mooy réew bu ko jeune defarul du avancé. gars yi bu ñu nax suñu bopp ñun ñëpp génnañ nañ. nañ hors secteur génn nañ frontière. dem nañ ba côté Maroc gis nañ liñ fa daj étranger li ñuy daj. ñu gis seen réew yi ni ñu privilégié seen jeunesse. Maroc am na liggéey yoo xam ne boo fa bëggee touché dañ naan la bu laal. lii jeunes yi jeune marocain moo ko moom pourquoi pas amul fii Sénégal Sénégal da liggéey ñu exploité la ñun dem nañ fa def nañ fa def nañ fa ay expérience mais dañu xam ne dañu war a ñibbi si ñëw suñu dëkk xeex xeex jël li ñu moom parce que boo fa demee dañ lay traité comme jaam loolu nag ñun ñoo war a mën a xeex suñu dëkk am li nga xamante ne moom lañ bëgg fii pour mën a toog liggéey booy ngay gis ñuy dem di dugg si géej gi di dee si gaal yi du seen bëgg-bëgg mais da ngay ñëw toog si gàlle bi gis gars yow maire beeg paa bi ñuy am soxla yow nga màgg war a mën a faj soxla yi doo ko mën kon fi mu nii bu ñu taxaw résister wu li ñuy bëgg mënul am ci dëkk bi li leen di ñaan mooy bu leen lu kenn bu leen lu kenn ku leen di influence wala ñuy guux seen xel yi naa leen ay kuddee yaa perno loolu amul du dëgg problème bi mooy yàlla moo yor bakkan sa bakkan bu fu mu war a rot fa lay rotee l'essentiel mooy neen xeex fi mu toll nii xeex droit la Macky Sall moomuñu bi mu soxlaa réew mi dafa xeex ñu ànd ak ñun ñu teg ci ci yoon ñu jox ko ko kon jii bu matalee dafa war a dem mënul opposant bu fi taxaw pour mën a ñëw toog def ay élection mu fexe nu la faagaagal faagaagalee deuxième mandat am bi lan la fi réalisé lu dul jéem a xeex Ousmane Sonko mu daanu kon tey ñun buñ ko seeraanee ba ñu faagaagal Ousmane Sonko mën nañ dem dugaat ci gaal yi dem deewi jiwaat parce que loolu moo fi sës quoi. waaw neen neen ko toog. fay tal ko bu jeex benn yoon. noonu la demee gars yi. Ousmane Sonko mooy suñu laas. dañu war a dem ci moo gën laas. waay mooy suñu laas. nañ ko jaay bakkan bi Macky Sall nañ ko jaay bakkan bi bakkan bi barke alquran karim ñëpp ñëpp nañ jaay Macky Sall bakkan bi Mamour Mamour Mbaye Dieng Mamour Dieng dara dara Macky Sall dara ñëpp ci yow ñëpp ci bokk yow ma question moom asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di di remercier seen taxawaay am na solo ndax dëkk am na koo xamante ne bu fa dooloo rek lii moo koy jëmale kanam ñun nag di ñuy def ñii defuñu ko pour Ousmane Sonko de dañ koy def ndax il est dañoo war a mën a révolter ndax dëkk dëkk ay ndaw ñoo koy defar dëkk nag buñ fi nekk ndox ay mag ñoo xamante ne li yàlla xam doy na kon day baax ndaw ñu jóg rey seen bopp ngir dëkk bi avancé amul monde bi yëpp amul si benn dëkk bu nga xamante ne nii avancé ne tey dëkk ba dox na ah, te jeunes yi révolté wuñu France bu ñu rayee taw woon te seen dëkk bu stable États-Unis bu ñu reyantewul woon tey seen dëkk du stable ñun nag dañoo war a mën a stable comme pays yëpp ndax yàlla defal nañu ñun Sénégal am teranga bu ñu yàlla deful teranga bu nekk am na Sénégal kon nag day jot ñun ñu xam suñu bopp ñàkk xam suñu bopp nag moo tax suñu dugg ay gaal di dee si àll bi jeunes nag bu ñu demee bay dugg gaal di dee si àll suñu biir ndox mi c'est parce que day wane ne ñun ragaluñu jeunes yi ragaluñu ragal du jël gaal di jéggi ay frontière du ñu ay ragal lii ñuy def nii lii moo gën a ndaw suñuy suñuy li leen a xamal nag mooy gis nga ñun ba géej gi fer ñun ñu ngi si ginnaaw Ousmane Sonko ragaluñu ragaluñu tey ragaluñu ëllëg di leen jaajëfal yéen ñëpp. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw Sonko ndax affaire moom waaye ñu ne bu baax waaw euh, da nga ñëw euh, pour participer ci li nga xam te ni moom mooy médaille da nga ñëw en tant que commerçant waaw dama ñëw ci benn xam pour jaay ci wàll waaye nag ñu sant yàlla bu baax xam ne bii moom Sonko moom ne quoi te tamit ne xam ne Sonko ñun Sénégal ñu ngi koy doxal bu baax quoi ndax instant yi boo gisee jaaykat yi côté ñu ngi see gis seen bopp jaaykat yi ndox di gis seen bopp ku si ne di gis sa bopp te li ñuy jël yëpp avant seen kër lañ ko yóbbu instant yi mag instant yi xamante li ñu bëgg daal mooy président bi moom na bàyyi Sonko am jàmm bu amee jàmm ñu am jàmm bu amul jàmm moom Sénégal du am jàmm jàmm Sonko mooy jàmm Sénégal Sonko nit waru ko mën a bañ jàmm Sonko mooy jàmm Sénégal instant yi ñun ñi nga xamante ni ñooy jaay ji ni xam ne bu baax askan wi bu ma ko wax xam nañ askan bu baax bu toll yi Sonko ndax man dama ko jaay si dëkk bi midi bi nii maa ngi koy jaay dina laa koy jaay nekkul dinañ dem nekkul nii kenn laa koy jaay quoi dinañ dem Pape Malick Ndour kàddu yu mu yëkkati mu mel ni am na benn jeune yoo xamante ni moom am na leen ba pare ba pare pour de faire face Pape Malick Ndour waaye kooku kooku kooku ragal la essai nii xoolal xam nga nekk si média yi di wax yooyu moom dafa yomb quoi waaw. Pape Malick Ndour duur kan la duur kan la Pape Malick Ndour duur kan la bëriwul maa ko wax jàllale leen ko day duur sama gars yi bu dee bëgg ngeen live bi mu continuer da ngeen di tapoter live bu baax da ngeen di tapoter live bu baax. yéen bëgg ngeen wax bëriwul Pape Malick Ndour ak Pape Malick Faye ñun bëgg nañ ba pare. ñoo ngi ñu doon ñàkk dañoo daan nag ñun ci ñoo yàqu. bu ngeen bëggee laaj. bu ñuy dee Ousmane Sonko dañuy tuut bu ñuy tudd Ousmane Sonko dañuy bëgg Pape Malick Ndour moo xam ak ki gën a xam ñun nous sommes les honnêtes de Ousmane Sonko tey ak ëllëg. Pape Malick Ndour xoolal Pape Malick Ndour bu tekk dee di génnee ñu nag jàpp suñu diggante rek ñun ak yéen da ngeen xam ne lépp dëgg la te lu ma di wax amu leen fit ñëwu leen ko bu ñuy duur rek ñun dañoo pare pour dee. jàppale Mali di yëpp ko Mali te Mali la gën a yombee li ma la wan nii li ma la wan noonu maanaam fii gouvernement ñun ñun ñoo yëpp dañoo yëpp Thank you.